salaamaaleykum amee internet Univers Info TV ñu ngi leen di bu baax di leen jox seen wàccuwaay je sais que euh, ndogu ngeen si jàmm ak salaam euh, tey nag dañu toppaat actualité parce que dañu jot nouvelle boo xamante ni vraiment nouvelle bu ñu naqari la ndax suñu mbokk taalibi la suñu xarit la waaye suñu wëlëre la di délégué Amar euh, moom mi nga xamante ni mooy doomu nday Waly Ballago Seck ñu dégg nii vraiment dafa daal di nekk ci loxoy yoon les raisons nag ba tey xamaguñ ko. Euh, mais ñu ñëw toog koo xamante ni ku ko jige la koo xamante ni aussi am na yu bari yoo xamante ni euh, daan na def ay sorti ci moom muy Idali Faramaren ñoom ñaan ñëpp ñoo bokk Faramaren ji mais bala ñu see sori dañuy nuyu Idali bàyyi ko mu nuyoog euh, yéen mbokk internet yi bala ñoo tàmbali li nga xamante ni moom mooy bi lay waxtaan donc Idali sans plus tarder dañ lay nuyu bàyyi la nga nuyoog mbokk internet yi nga xamante ni ñoo ngi lay seetaan. salaamaaleykum wa maa ngi lay ziar Gallo mu Serigne Saliou maa ngi lay ziar baax di ziar mbokk internet yi nga xam ne ñooy safoo seetaan univers info site bu mag bi di sama site macha allah kii nekk euh, directeur bi sama xarit la sama lépp la ñu bokk Serigne Saliou te muy dëgg nag parce ñu bokk Serigne Saliou dafa dafa dafa dafa yomb rek di wax nii mais jëfe ko moo moo jafe te saa su ne da koy jëfee di ziar sénégalais yëpp fépp sénégalais nekk maa ngi lay ziar kéwul sénégalais sax maa ngi lay ziar ku doomu aadama nekk rek waaye di santaat yàlla tey ñu nekk ci weer bu tedd mu weeru ramadaan eh, di weeru koor di weeru njëggal weeru yërmande eh, may baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak di wax yàlla na yàlla defal jàmm ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam eh, maa ngi nii léegi laa génnoon dama amoon fu ma invité woon ay ndogu sama mbokk Baye Fall ne waa Kër Cheikh la waaye Serigne Saliou dafa am nu mu def ci man moo tax souvent may wax idaali mu Serigne Saliou waaw parce que Serigne Saliou moo xoon Serigne Touba jox ma ndaw ñi ma def ñoom li nga def ci mag ñi waaye nag ndaw ñi mu jëluñ ci Serigne Touba Euh, man ci laa bokk moo tax euh, lu ma wax foog ma wax ci Serigne Saliou parce que daa am nu ma def noo xam ne dama yaakaar ne man rek la ko def di sant piir bu di santaat bu wér. Hmm. yow daal koor gi mën nga waat ni chaque jour ak fa ngay ndogu jee idali. waaw ak fa ngay ndogu euh, yaakaar naa ñaari yoon laa ndogoo ci kër. beneen kër gi may ndogoo yëpp kooku sama mbokkum taalibe la sama xarit la sama lépp la muy Paco. Paco ku nekk xam na ko muy l'ami intime de Wally di jumeau Wally mooy Wally mooy Paco. ku nekk naan ko di ko tuddee di ko jaawale ak waal yi moom yaakaar naa daaw la woon sama couleur ak moom pour ndogu bi ren bi amee tam premier koor woo ma dema sama kër nga ndogoo may euh, nuyu au passage jabaram euh, di astu macha allah di ku baax bu ma demee toujours muy teg lu mu nekk parce que man célibataire la euh, ñu dénk ma ko waaw célibataire la ñu dénk ma ko euh, ma fay ndogoo waaye itam euh, beneen ki itam ki ma invité itam keneen ki Dez la borom États-Unis borom Columbus sama xarit la sama lépp la kooku nga jël waaw moom maa ngi moom yàgg nañ macha allah euh, la waaye ndogu ma feneen mais sànq nag dañ may invité spécial boo xam ne sama mbokk Baye Fall ñoom invité ndogu ma demoon boo gisee tey ni ma def yaakaar naa xam ne tey maa ngi ñaari Baye Fall tey waaw tax nga ba dëgër yaa ngi mel ni ku jógee pôle nord de tey moom merci waaw parce que bi nga def mbaxana mi mm-hmm. écharpe bi écharpe bi la man xaalisu majjal lañ ma ngénte comme Balla Gaye li mu waxoon barke Cheikh Ibra sama baay Baay Fall la ku mu jur Baay Fall la kon man Baay Fall piir laa ñu tudde ma sëñ Idaali Fall bu ñaari Baay Fall doomu sëñ mënut fa rakku euh, rakku sëñ Cheikh Fall Baay góor la moom la ma tudde moo ma téye tuddem boppam ci loxo mi tedd yooyu kon man Baay Fall pire laa barke Cheikhul Khadim di ko jëfe di ko waxee ànd ak dëgg nag parce Baay Fall day dëggu day jubal te man damay dëgg damay jubal noonu laa gëm barke Cheikh Ibra Mm. Mm-hmm. yaa ngi aalu tey aal nga indi mais bon euh, waxtaan bi dañ koy tàmbalee ci nouvelle bu naqari bi ñu jot suñu frère vraiment euh, ñu koy masawuwaat bu baax a baax délégué Amar ñu jékki-jékki euh, ñu jox ñu information ni ñu vraiment yoon daf ko teg loxo te ngeen bokk Faramaren lan nga ñuy wax ci loolu. bon dañu dindi côté Faramaren tey du Faramaren nag ay keneen. Idali la Idali mu Serigne Touba Idali mu Serigne Saliou. taalibe Cheikh Rafal bi ak ngóor soosu jóge Jurbel booy Jurbel bi mais du and bul andi Faramareen bugguma kenn waxu Faramareen man la ak moom. mais pourquoi dénigration ngóor soosu waaw xam na waaw parce que xam lan moo tax. Ah. xam lan moo tax man ku ma naaw loolul ma la tudd. barke maam Cheikh Ibrahima Fall. ku ma naaw loolu du ma tudd. te Gallo tey ngay dégg dagg danga ne ngeen ñu bokk naqar man damaa jàpp ne man dama am mbégte. luy loolu yow yow sa Baye des na Idali. dërëjëf Cheikh Adim Baye Fall pire la mais Baye Fall dina yéene moroomu jullitam. yéene ma de wala yéene ma ko de. ah mbégte nga am nga waaw mbégte. ma ko de mais damaa am mbégte. xam nga lan moo tax ma am yàlla day atte te yàlla rek mooy dëgg bi woor keneen du dëgg. tribunal bi ñu dem ak yóbbu tak yëpp gëwuma ko man yàlla mooy attel boppam. waaw léegi yow lan déglu rek waaw. lan la dama bëgg nga expliquer ma kay. waaw lan la mooy lan la mooy liir nga internet bi. ni ñuy yàqe sama der te moom rek mooy yàq sama der mosoo mënoo ma génneel benn vidéo boo xam ne Idali yàq na benn jëmm ci àdduna mosuma yàq nit ci adduna àdduna mosuma weer nit ci àdduna mosuma vilipender nit ci àdduna mosuma wax nit ci bon ci àdduna ci internet bi su may wax ki may bëgg laay wax ci moom pour mu avancer mu avancer mais mosuma yàq doomu adama te pourtant mën naa yàq doomu adama parce que ñoom ñëpp maa leen njëkk ci showbiz maa leen njëkk ci jamono barke ci alxuraan karim ngóor soosu dëkk Jurbel ngaaka ki nga xam ne dafa ñëw Dakar pour forcer 92 la juddu 92 la juddu xale bu ndaw man ma juddu 82. kon maa ko mage lu bëri ci àdduna mage lu ko bëri ci ci ci Ndakaaru kon tey bu ñëwee ne day yàq sama dara mënu ko yàq nag mais def na lu metti parce que sama xol xol yàpp ak dara la ak sirit lu ci jëm day naaj. kon yow yaa porte plainte délégué. barke maam Cheikh Fall porte ma plainte du ma porte plainte nit yàlla moo. ëpp kon lan moo tax nga naan ay dafa yàq sama der ak waa déglul maa taajal yàq sama der. loolu kañ porte ak lan la la wax. internet baa ngi fi tàppeel ci site internet yi. naa la wax boo xamul li mu wax naa la wax li ma wax. mais expliquer ma lan la wax ba ngay kontaan foofu laa ñëwee noonu comprendre nga. yàq sama der guddeeg bëccëg ñi ma xam nag xam nañ ne Idaly nit ku baax la nit ko amul problème la comprendre nga nit koo xam ne doomu aadama yi ñoo koy tàllal toujours la comprendre nga mais mu mel ni dama ko def dara chaque jour que je day gis lu may yàqal wala loo xam ne maanaam daf may tuutal toujours mu koy wax du benn du ñaar comprendre njëkk na ma ko def ma ne yal na yal na ma ko yàlla àtteeg moom balaa deux mois balaa deux mois mu ñu mu dellu kaso mu ñëwaat génn jéggalu ma barke maam Cheikh Ibrahima Fall fii la ñëw ba fii toog fi jéggalu ma barke alxuraani karim ne ma sos rek laay def moom ko wax ci ngalam moom moo ne la lan dërëjëy laa ilaha illa huwa bu nekkee waxuma ko émission bi bala moo dugg yal naa dem alaxira mhm. man du ma waxantu de dof laa nag su ma meree du ma waxantu de te maa mën a sangal nit sutura barke alxuraan su nekkee woowu ma barke maam Cheikh Fall ne ma. non da nga ne dafay ñëw. ñëw na fi dëggul rek. mais sos bi ma wax woo la ma def. Mhm. te bu ñu doon génn appel tey bu dee appel du effacé wu ci àdduna bu ñu demoon pour génn appel yi dinañ jot appel boobu mu ne ma da ngay dof da ngay mën a sos rek xam ne man maa mën a gën a mën a sos ci àdduna su ma la sosalee nga yàqu. Mhm. ma ne ko ah en tout cas loo mën a def daal man yow du wax lu la neex man xam naa sama bopp yow xam nga yàlla xam na mhm. mu ne ma ba jéggal ma affaire ma ne ko man jàppalu ma dara parce que ma jàppoon damay génn di wax loolu jeex ma bàyyi mu dawal deux jours mu ànd fekk ak benn DG clic benn DG site internet ñëw ñu toog fii comprendre nga Siraj may leen ñu wax dañuy tourné ñëw toog fii. lu mu fiy def sax la xaar rek ñëw ñëw toog fii. yow tamit del toog sa kër Siraj. ma tàngal café jox ko tàngal kafe jox DG bi ñu waxtaan mu ne ma jéggal ma affaire ñu waxtaan nice ma bàyyi lépp mu sedd ñu dawal fekk dafa yàqoon sama der ci biir kaso bi ñu fi nekkee maak moom. te lim doon wax ci kaso bi yëpp. Ah, barke naa kaso moom jooy nga fa nekkee woon. barke laa ilaha illa huwa billahi wallahi wa taala billahi wa taala walaala mu nekkee li mu wax ci biir kaso bi man maa ko dund. émission bi ba mu bala moo dugg yàlla nañ ma yóbbu Touba damay waat comme ni mu waatee woon ah, parce que moom dafa waat tey ba yàlla attañu ma ak moom. wax ci biir kaso ne moom laa doon def bi mu génnee moom moo doon dund loolu ñëw dund bi doon dund moom mu génne ko ne man maa doon am na koo xam ne du ma tudd turam même tudd nag émission bi foog mu gudd xam nga koy def deux parties xam nga def parce que li may wax daf maa ñor parce que dañ maa tooñoon yàlla attañu te moom moo ñaan yàlla attañu man ñaanu ma ko moo ko ñaanoon ci fin émission bi naa la ko andil moom bi ñu tëjee kaso sambu 13 ñu nekk sambu 13 deux jours sama benn xarit tey laay barke alxuraani karim man maa ko yoroon kaso bi te moom nee na moo ma yoroon moo ma génne moo ma naa la woon naa la yëpp ay preuve bi ñu nekkee kaso bi sama benn xarit bu ñu wax Salma baal ma Salma foog ma tudd moom moo ma jëlal transfert pour ñu yóbbu ma beneen chambre bu gën a neex chambre quarante barke alxuraani karim ñu yóbbu ma chambre 40 man ak moom lépp maa ko doon yóbbaale barke laa ilaha illa huwa benn bokkam taxu ko te ba amee ni ñu baax seulement transfert ñu yóbbu ñu chambre 40 bu ñu fa demee fekk fa benn xaritam moom moom booy bi jóge Jurbel moom nguur ci ngaaka bi jóge Jurbel ñu fekk fa benn xaritam boo xam ne mu ngi sant ndaw du ma tudd turam ndaw la sant bu ma déggee dina li may wax tey wax dafa jot pour ñu wax toog nañ boobu ba léegi ça fait un an waxuñu bi ñu demee nekk ak chambre bi kooku man xaw ma kooku xaw ma fa kenn chambre bi kooku nuyu ko eh, affaire ne ko dama fi am problème kooku am 6 kooku kañ fa fekk ndaw ki sant ndaw bi ko fekkee mu waxtaan ak moom affaire yooyu ndox ko li ko andi maa ngi tëdd nii affaire ñu toog mu koy wax da nga war a bàyyi woykat bi parce que woykat bi yóbbu na la fu nekk def nga lekk yow li nga war yëpp jeexal na ndax Wally sekk jeexal nga lépp mu ne ko dëgg la kay ko yedd di ko yedd foofu mu ne ko dëgg la ma yoroon yëpp ba li ma dóoroon naa ko baatare naa ko jox naa ko artiste ba mu jeex comprendre nga da ngaa a bàyyi xool sa yoon waa ki sant ndaw moo ko wax loolu xaritam la mu ngi joon ci kaso bi génn na sax mu ngi essane ngi Dakar fii comprendre nga ko boo génnee xoolal sa vie nga defar sa àdduna affaire yooyu mu ne ko dëgg li nga wax dëgg su ma génnee damay bàyyi woykat bi billahi wallahi wa taala su nekkee waxu ko yàlla na balaa vidéo bee dugg ñu yóbbu ma Touba wax man du ma wax waxantu wax waxam boobu nag la génn bi mu génnee ci DJ Yves la ko defee waxee ne man maa wax ne dama ma génn damay bàyyi Wally Seck barke laa ilaha illallah billahi wallahi wa taala musuma wax Wally Seck négatif lu bon barke alxuraan karim bàyyi fàlla du ma waxantu billahi tey damaa wax parce que wax dafa jot parce que dañ ma tooñ tooñaan ma xol bu nekk xol nga bi ñu génnee mu wax loolu mu génn toog ma ne ko bu mu génne ma ne ko Fall ñu ngi doon di génn bul wax ci télé toogal ku la laaj ci affaire bi faramaan bi ofal mu dëgër bopp deux jours lañ fekk trois jours mu génn def sorti man def ma sorti yaakaar naa mu génn def sorti wax li ma yëpp ay wax ma li ma doon dooy dafa doon def dafa ma bàyyi lépp mu sedd këpp ma moo ma yoroon te DG Uba DG Uba moo ñu génne ci kaso bi te moom nee na moo ma génne moo jël avocat moo def lii barke alxuraani karim Duba moo ñu génne ci kaso bi bi booy bi ne moo dañ koo dañ koo téléphone am dafa réer deux cent mille Uba moo génne deux cent mille fay ko Uba moo ñu doon andil chaque jour de jë trois kilos yàpp non dama parce que non xam nga lan moo tax non <laughs> déglu rek xoolal waaw continuer chaque jour waaw d'accord amul problème chaque jour que ja uba moo ñuy andil 3 kilos yàpp man maa ko yoroon ci kaso bi barke alxuraan bu dee benn bokkam andi na fa gerte caaf billaahi wallaahi wa taala yàlla naa torox ci àdduna man maa ko yoroon 15 jours ba vendredi bi ñu génne yàpp bi dafa ñëw comprendre ba jour bi ñu génne yàpp bi dafa ñëw amul benn mbokkam bu ko benn mbokkam bu ko seet dërëjëy laa ilaha illa huwa maa ngi nekk nii ci koor yore na bor biir kaso dëdduñu la lépp xaalis billaahi wa bu bu amul yàlla naa torox bu ñu paree naa woo kenn koo xam ne dem na États-Unis ci kaso bi lañ ko fekkoon moo ñu doon bindal suñuy bon barke alxuraani karim yoral na ko 10 000 francs bi mu génnee woot topp na ba sonn jox ma numéro diw ma ne ko non du ko jox du la ko jox mhm. am na keneen koo xam ne dañ ko tëj 5 ans 5 mhm. ans barke alxuraani karim yoral na ko yoroon na ko ay buuka buuka boo ko déggee maanaam xaalis du dugg foofu mais cigarette ngay jël par cigarette ngay jël commande yoroon na ko fa 7000 francs bi kooku génne di ma laaj 10 000 francs bi la naan ma dafa yóbbaale 10 000 12 biir kaso bi leb bay leb biir kaso barke laa ilaha illallah bu dul dëgg yàlla naa trop sama àdduna man du ma yàq nit non xaaral rek tey wax non na nee naa la nee naa non xaaral rek xam nga lan moo ñu ëppal importance xaaral dinaa bu njëkkal dafa génn yàq ma ci DJ

ndamu yàlla moo gën ndamu lépp yàlla mooy lépp man du ko porter plainte li ma waxoon mënoon naa ko porter plainte du ma ko porter plainte ndamu yàlla lépp il se comprendre nga te émission bi da nga ne dafa gudd sax mais dama la wax jaar-jaaram ak ni mu ñëwee Ndakaaru ak ki ko dalal Ndakaaru maa ko dalal Ndakaaru xëy bi d'accord non amul waaw foofu laay wax xaaral rek ngóor su jóge ndaw xaaral xaaral rek ngóor bu mbag boobu jóge Jurbel ñëw di forcé dëggul rek waaw bu nu ngaaka kay yow sax xam nga ne da ngay da ngay def sa liggéey mais xam nga ne yow ngaaka la man lu xam nga ko yow yow xam nga ko yow xam nga lépp boo bëggee dag émission buy ma xam nga lépp yow. wax ma leneen li nga bëgg a dégg nga dégg. attends non non non non non Idale. waa léegi waxal il faut qu'on soit sérieux quand eh, même. te damaa kontaan. non il faut yàlla damaa atteint kontaan warul tax nga fiy nekk di wax loo xamante ni gëmoo ko wala boog amul. man nga comprendre nga waaw lu ma gëmul waaw non attends rek attends. lu ma gëmul man lu ma gëmul. non la tax nga taxaw ci yi naan prison moo def lii wala moo leb lii wala moo leb lii. parce que da kaa wax te amuñu dara benn preuve bu ñu ci leer. da kaa wax ok léegi beneen question bi ma am envie poser la ko mooy euh, euh, moom lan moo ko dugal ci ci kaso bi ban problème la am. kan la amal problème. kasaban biyam bi mu dugg nii. bi non xaaral ba nga dugg ci loolu pare. dimbali ma Idda Ly li ngeen dund depuis deux ans. mënoo fi ñëw lii ba ma révolté wu wax. xam nga def na ko defaat ko waxuma génn ma mais révolté bi fi safee moom mu nekk ci biti mën a jàkkaarloog yow ngay wax mu lay tontu mais nga bàyyi ko ba mu dugg si jeel bi nga ni da ngay révolté wu tamit sens bi bari mu de xam lan moo tax mhm. dafa dafa wax ci internet te dégg naa fekk na la chez euro waa dëggul waa dëggul bu la neexee wax la neex man ah dama ko dégg de man sama moroomu góor du ma du ma dóor ci àdduna boo yàq boo boo naree émission bi xoolal dama la wax may génn di wax dafa génn yàq sama dar ci internet bi comprendre ñi comprendre comprendre ñu dama lay won ne ba pare mu wax ne encore su nekkee moom li mu wax ci man su nekkee ay sos la troisième jour koor la ko wax mu nekkee bu nekkee ay sos la yàlla na bu mu jeexal koor gi yàlla na yàlla ate balaa koor gee jeex moom loolu la waxoon moo tax ma génn moo tax may wax sénégalais yi ne la mu waxoon yàlla def na ko moo waatoon taxawoon waat ci alxuraan kaamil ne bu nekkee day sos yal na yal ma yàlla atte moom balaa koor gee jeex tey la septième jour koor gi vingt septième ah yàlla atte ñu atte nañu di septième exemple yàlla atte nañu il se comprendre nga foofu laay waxee maanaam ne tey foog ma révolté wu ci yàlla suñu borom li ñu defal li ñu atte parce que dëgg rek ay dëgg fii ay fen nekku fi ku nekk ci fen ku nekk ci dëgg jàppal fi nga jàpp ne xam na yaa ngi jàpp ci yàlla parce que yàlla rek ay dëgg moom moo ko waxal boppam ne yàlla ñu àtte at yàlla àtte nañu comprendre nga moom moo taxaw wax li mu wax yëpp fenal ma encore fenal ma encore ci Wally Seck ne Wally Seck daf maa jox xaalis grand théâtre pour ma jox presse sénégalaise bi ma lekk xaalis bi Wally sekk woo ma ci kanam presse bi ne ma idali kaa ñëpp taxaw mu ne ma idal lan moo tax su la joxe xaalis la joxal presse bi nga lekk ko. loolu am na wala amul. amul. bi la Wally wooyee lan la la wax. Wally woo ma de moom moo wax loolu laala la wax. Hmm. non moom moo wax lool ne Wally dafa maa woo wax ma loolu moom da koo wax ci internet bi moom Wally ngi dégg ba ma jël vidéo yi téléchargé ko estati ko parce que dama xam ne dam yàgg yàgg damay am dam Wally ba ko déggee sax war naa reetaan Wally fan la ma mos a jox xaalis ma joxal presse sénégalaise bi yow mii di ma interview yaa woon Gambie nee na Wally dañoo ñëw dañoo ñëw Gambie Wally jox ma neuf barde ne ma joxal presse bi ma dem jox ko samay ay gel yu nekk Gambie Gàmbi da yaa ko moom moom. xaaral rek waaw mais Gàmbi moom euh, def interview da ngay bu nit ko waxee loo xam ne da nga seere nga la tiim nga wax te weeru koor la ñàkk yow yaa ngi fa woon na dañu wax rek yaa ngi la neexee sax mën bi mu lan laa ko wax bi nga ñëwee a naa la bad yow man jox nga ma accréditation voilà bi waale ñëwee fekk ñu ñëpp ñu taxaw bi waale egsee lan laa dama dem ci waale ne ko lan n'est-ce pas dama dem ci waali def ko attaque loxo mu ubbi ma ne ko président presse sénégalais yëpp ñu ngi nii taxaw amuñu. ban président fay la. non non dañuy waxtaan quoi bu xam nga nag euh, Galon ah. bëgguma ñuy mbala dama préciser rek. non non non mais dama bëgg maanaam ñu waxtaan loo xam ne dañuy leeral quoi. dama bëgg ñu waxtaan quoi pas mbalak man man du ma kenn du man tekki micro di ma ñàkk loo fayda comprendre non xaaral xamal ma tax comme ñoom li ñuy def mais sa kontaan dama bëgg ba léegi barke maam Cheikh Fall dama bëgg mais yaa ngi xam laa bëgg xam ah. mhm. yi déggoon li mu ma wax yëpp ak li mu waxoon pour ma leeral ko mu leer mhm. nga wax nga boo ci wax point yow jooju est-ce que siw na que non déglul non non déglul bu mu toog wax ko ba ci Dakar live da ko wax tit bu mu toog wax ko fépp wax ko ba ci barke dem bi muy xeer euh, euh, kooku ci ci plateau bi wul fu mu toog wax ko yow am nga seede Wally Seck dama jox band wala Saliou Seck joxuma band wala dama ne ko presse Sénégal ñu ngi nii taxaw mu ne ma mu ngi taxaw maa ngi taxaw ñëpp mu ne ma compter ma ñaata lañ ma ñëw compter lépp muy 9 personnes ña fa nekk ma ne ko 9 ñoo fi nekk ne ma xaaral ma woo diw mu jox la 9 band yaa ngi taxaw mu jox ma 9 band may jox ñëpp ba mu ba quatrième personne bi ci la Nabou Ngom egsi parce que dafa tudd Nabou Ngom moo tax ma moom nee na Nabou Ngom di jooy na fi leen ne ma jox ma band ma ne ko 9 yi de laa fi compter. parce que Waly dafa taxaw mu ne ñaataa fi nekk ba ne ko neuf te neuf yi ma contrat laa mën a jox Bad entraînement comprendre nga ma jox neuf yi Bad nabu dem après soir bi jeex mu ne ma mu dem ci Waly ne jox ma Bad Waly comprendre dafa jàpp ne neuf yi ci nabu ci la bokk ma ne ko nag ba may bokku ci soir dafa jeex ma gis appel Waly ay 5 heures du matin automatiquement ma xam ne loolu la ma leeral ko aussi tam ñu comprend mais moom mu ñëw ne damaa jël bat yi jox ko sama gel yi nekk Gambie te yaa ngi foon président bu nekk laa lépp laa jox amul ku ma joxul neuf yoo fa compté woon yi ma wàll yoo xam ne compté ko mu sosal ma ci loolu mu lu ma metti ñi xam-xam nañ ku mel ni yow xam na du garaaw mais ñeneen ñi nga xam ne dañuy nekk ci bi comprendre uñu léegi nag mu wax journaliste bi ne ko est-ce que lii ngay wax sosaloo ko idali pour nga am place mu ne ko su ma ko nammee sosal lii ma wax weeru koor lañ nekk yàlla na ma yàlla atteeg moom balaa koor gee jeex hmm. loolu moo tax tey ma woo presse bi parce que presse la ma yàqe woon mënumaa yàq sax man damaa liggéey sama ñaari waajur bañ xëy dem euh, alaxira kon mënumaa yàq moom man damaa topp sax sama waajur ba ñu dee sama sama loxo barke alxuraan karim ñu am ma am seen ngërëm kon mënumaa yàq je comprends nga mais dama lay wax ne fi mu jaaroon di waxaat loolu tey yàlla att nañu parce que moom moo ko ñaan ci kaamil ñaan ko ci weeru koor kon weeru koor bi atte nañu tey loolu moo tax ma am mbégte te weeru koor lu ma ko gën a jàpp naa ko gën a jàppaat barke alxuraani karim. booy bi damaa tooñ de. xam man ban problème laa am Idali. waxal ak loolu nit mën ci def. non loolu tamit non sama xol la non en fait damay laaj ma ni ak yow loolu Idali daa saay saay de li nga gis ni barke alxuraan boo waxee da may bàyyi ma wax. yi tamit non tey amoo droit wax monopoliser parole bi. non tey amul question non ba ma pare. tey man bandi laa bandi laa mooy xol maa fi gën a baax barke alxuraan mais lu ma mënu lu ma narul def mbindeef du tax ma def ko wala déggoo tey doo wax ne délégué man maa la pour nga toog euh, yow Gallo da ngay téye sa noppi li ma wax yëpp xam naa ko jor nga ma ko questionné mën naa ko génne tey dama am mbégte yàlla dafa atte yàlla rek ay yàlla man xanaa amoon nag ku ma laal gis ko bu la neexee loolu nga ñëw ci question man idali barke maam Cheikh Fall ku ma tooñ tey ko ba pare dëgg ne da ngaa tooñ jégglu woo ma di ko gis billaahi wallaahi du ma du ma du ma ménager kenn mais man xam naa ne damaa set te xam naa ne barke alxuraani karim ñaari góor ñoo ma sukk jur ma liggéey lañ bañ bañ bañ génn àdduna barke maam Cheikh Fall ba pare sama xol rafet ñett laa boole am liggéey waajur ba pare sama xol rafet ma yéene ñëpp jàmm moo tax ku ma tooñ te ma te te ma di ko gis man su ma tooñee man su ma galo su ma tooñee man damay ñëw jégglu la galo ne la baal ma àq maa la tooñ mais tooñ la ba pare di rëy rëylu wan ne tooñu ma la yàllaay atte yàgg-yàgg am na ñu ma fi tooñoon tas sama vidéo tas samay sama samay sama audio bu ma leen woo après dañoo toog une un mois lañ toog liñ dund ci àdduna yëpp mënatuñoo am fuite audio fuité dañoo toog tas sama audio ma woo ko di ko jégalu mu tas sama audio dañoo toog un mois audio tas muy saaga ay kilifa audio am tas ci àdduna bi man kenn du ma tooñ doomu Ibrahima seen barke maam Chara Fall tëréer pire la lakkat la waxuma du ma tooñ de mais billaahi wallaahi ku ma tooñ te tey ko da nga koy gis galo moytu ma barke maam Chara Fall damaa liggéeyal ko aju baax barke Cheikhul Khadim sama damaa liggéeyal waa ju baax man duma ma tooñ waxuma du ma tooñ damay tooñ amul ku tooñ ci àdduna mais tooñu tayeef moo baaxul yàllaay atte du ma yóbbu nit police su ma yóbbu fen yàllaay atte su ma yóbbu nit police xamal ne sës naa. pare nga defal waxal la neex. yow sa menaces yi ci lan ngay. jaay lan ngay jaay ay baatin nii naan. ay barke laa ilaaha illaa huwa yow ban baatin nga jaay yow Idali laa bëgg a. xam ñuy yow xam nga ma. xaw ma la de xaw ma la xaw ma la fan laa la xamee. léegi nag xamoo ma bi signé ko Idale xaw ma la ngay gay na gay na lu yow doo réglé. Gallo kii dina ma rey. yow xam nga bu baax léegi eh, xaw ma dara. man du ma du ma xaar rek menace du ma menace doomu aadama. Gallo damaa am metti dama koy génne dama am mbégte. damay santaat léegi yow léegi yow damay santaat waaw baax même ma ñëw comme que dama naroon wax foofu nga dog ma xam nga li ma bëgg a wax yow humainement yow nga ni taalibe Serigne Saliou nga Baye faal nga sam nawle ak lum la tooñ tooñ tooñ tooñ tooñ ñu dugal ko fële nga xamante ne moom mooy ndungu siin nga ni da ngay jubilé idali loolu est-ce que nit ku normal sincèrement dina ko def. léeg-léeg du ma normal la loolu moo tax <laughs> léeg-léeg du ma normal loolu moo tax tey dama bokk ci journée yi ma normalul tey damaa bokk ci journée yi ma normalul man nee naa la sa waay eh, man ngay waxal de barke Cheikhul Khadim damaa kontaan mënoo fexe ba sama mbégte bi amul yàlla ate gën naa laa ragal de. barke Cheikhul Khadim moytu ma yow ku nga ni da nga ci àdduna ah. jaxase ku nekk xam na ne maa fi gën a rafet xol sama rafet xol moo ma tardeel maa ngi sant yàlla tardé ma mais xam nga ne man melu ma noonu barke Cheikhul Khadim koo xam ne day am problème woola yow fee mu ne yow yaa fa waroon a dëggu rek barke Cheikhul naree dem te tooñ yàlla yóbbu ma fa billaahi wala fa mu dem yaa yaa fa waroon a njëkk pour masawu ko pour taxawu ko non sequma ak moom masawu hmm. ngóor soo dëkk Jurbel dama koo bloqué léegi yow léegi yow beneen beneen affaire bi ma jaaxal yow Idali moom euh, kii ma xool Adama moom moo def sorti joxe information bi ñun yëguñu ko woon mais man yow information bi si say statut laa ko gisee yow lan ban rendement nga am ci publier tëju euh, kii délégué Amar. ban publier ban lan laa publier. vidéo sama site de. vidéo moo ko de nga def koy statut. waaw mais day ah. leer rek. at ci groupe presse bi tamit. dugal nga ko fa. waaw dugal naa léegi yow loolu lan lan nga si jublu. dégg li ma la wax li ma jub wax naa ko. nee naa la dafa ma toogoon yàq ma ci internet bi ñëpp dégg ko. yow yow Adama moo la yónnee vidéo. déggoo li ma la wax vidéo maa ko jël ci sama euh, ci sama ci sama ci ci ci TikTok bi. léegi moom lan lañ ko jàppee. non xoolal liñ ko jàppee. dégg naa ci vidéo bi ñu ne problème mu jabaru Cheikh Amar boobu mu audio yi moom doon mook bada ñu doon coow noonu. ah Adama. waaw Adama voilà xaw ma waaw ñu doon coow noonu mook suñ bada te suñ bada naan damay fay pour ma yàq Adama ak yooyu dégg naa ci loolu la. te dégg naa sax plainte bi yàgg na ñu koy woo mu naan maa ngi Touba ak maa ngi xel koom ak sëñ bee ma yóon nekk euh, maa ngi fay ak euh, damaa dem euh, jëli ngooñ ca àll baak lu nekk wax na ko ngooñ laa jëli jurbel sama xar yi nangam ak sama xaru grand frère rek lépp dégg naa lu nekk wax na ko affaire yi mën na un mois yooyu xam nga fii tooñ lekk moo bon yàlla day atte de cay ngóor si dëkk jurbel cay te nag yokk yokk la tudd yokk bu mu jógee Dakar nekk Dakar jóge Touba yokk lañ ko doon wooye der gi mu doon takk da ko doon takk ci ndigg li ba ci dënd bi naan waay Baye Fall waaw jaajëf waay Baye Fall yokk yokk jumaa ja barke Cheikhul Khadim laa rote man man mais fii paas déglu ma ñëpp ñëw man boo paasee ñëw xam ne na ngay def bul sauté da ngay jaar ci porte bi escalier bi nga ñëw sama kër deuxième laa dëkk da nga jaar escalier ñëw taxaw ci porte bi rek sauté boo sauté woon damm nga moom dafa ñëw rek sauté pour bëgg a bi moo tax ñu crac je comprends nga bi mu ñëwee roset la ma fekk man ma nekk maa dàqoon photo ba léegi sax amul maa dàqoon photo sina jox sama crène ma naan <coughs> jox ma bi xoolal dama kontaan barke Serafal ma ndox ma naan maa ngi sant Serigne Saliou yow xam nga ne maa dàqoon foto maa dàq photo ci monde bi du ma ne Sénégal monde bi studio laa yoroon ñaari studio laa yoroon Caaroy bi may débuté croisement Télé Diallo ak la la Rosette bi mu jógee yor yor mbuus bu bulo di ngan di dar falaw fekk la recette ma dalal ko may foto si studio bi nekk grand frère am 92 la juddu sa waay maa ko dalal ndakaaru muy bañ muy naqari daa ñëw bu ko forcé boobu man duguma sax ci affaire showbiz yi boobu ndongolo laa soirée ndongolo laa dem boobu may dem saa ndongolo juddoo ñëwagul de ñëwagul Dakar de 2005 ndongolo 2005 la ju la gaañu ñëwagul Dakar boobu de li may wax ni ay Dakar beeg yooyu ay 2000 la 2001 la ñëw Dakar ay 2000 2002 mais bi may ànd ak Ndongo Lo dem Ravin ak Papa Ndiaye boobu 2005 2004 2005 boobu ñëwagul de maa ko dalal mu naan yokk jumaa ja wala déggoo ma li tax ñu xamante ñu après mu ñëw grand ma ma bu ñëwee may ko photo studio mu dem ñu dégg ñu toog ay at mu ñëw dakaar moom mu ñu mu ñëw côté yi gëj naa ko gis li ñu jotalewaat li ñu xamale waat jëruñ sëriñ Touba jëruñ Serigne Saliou Cheikh Amar ku baax kooku moo tax ñu waat ci euh, cité Cheikh Amar nu mu tudd. ci ci Cheikh Amar yi nekk euh, Almadi Cheikh Amar fa la doon def ay cant ma fay ñëw di jóge caara di photo si fa laa xamanteeg booy Touba boobu ngaaka boobu jóge Jurbel mu ne ma eh, grand yaa ngi doon photo fële affaire yi fi lañ xamante waate sa waay maa ko dalal Dakar dafa bëgg a ñëw forte mm-hmm. comprendre nga maanaam man daal en tout cas li may wax sénégalais yi billaay wallaay ku ma tooñ tey ko da nga koy gis du ma dara nag mais wàllu laa damaa bokk fu baax yow bàyyi ma waay idali ngaan wàllu liggéeyal sama ñaari waajur ba ñu génn àdduna bàyyi ma fi sama xol rafet ku ma tooñ da nga koy gis barke Cheikhul Khadim man man man showbiz bi jaaxal amul li du showbiz de baal showbiz donc bëgguma non déglu ma bëgguma ngay wax showbiz bëgguma ngay wax sa naw nekk ci problème nga naan dama kontaan di jubilé ah man daal man comprendre Sénégal vraiment bu yëpp naa la bàyyi nga tàggatoo bu yëpp bu yeboo ñëpp ne ma Idali ab dof la Idali léegi wax nag de xoolal maanaam ci lii ma téye quoi mbégte bi mu am ni di sant bu yeboon ñëpp ne ma Idali dof la xam nga la moo tax man xam naa nekk sama xol te dama koy génne force su ma ko génne génnewul du baax ci man. baax na Idale nan la bàyyi nga tàggatoo. yow saytaane nga galo xam la moo tax saytaane galo non non non non nga xam lépp. xaw ma nag mais nag sa liggéey ngay def journaliste bi. non non attends xam nga lépp Idale xam nga sa liggéey ngay def. non xaaral rek déglu ma yaa fi waat sànq nga ni. doo sos doo wax lu la wóorul doo sosol nit. billaahi wala waaw defal ndànk defal ndànk defal euh, ndànk xoolal muy jeex. alhamdulilah li ma dogoo neex. non sant Serigne Saliou rek. non non ma wuy ma yii ngay def nii amul benn sens. il faut qu'on se respecte si il eh, faut que non il faut daagoo ma bu dee jàng français daagoo ma jàng xaaral rek xaaral rek man maa wàcc sam bopp barki Cheikhul Khadim yow ñoo nekk noonu daara ja no da ngay def nank rek nga nekk daara ne bu nekk daara siis daagoo ma daagoo gënoo ma làkk français anglais bi nga non nga li ma la wax yow xaw ma li ngay wax ba li ngay def li ñu ma sosal xam nga ne ñaar yëpp du ci dëgg no no non non yàq sama der mais dara léegi ma si waaw léegi nee na man maay faral waaw da ngay déglu ma wax la Idali xam nga Gambie trois jours la lu nit la man benn jour bi laa fekkee mais yeneen ñaari jours yi naa ko xam nga may seedaloo man lu sama yoon si loolu waa léegi sama patron mariage mu ngi may seetaan xam na ba xam ñaari damaa jox ñaari yoon wala joxuma ñaari yoon naa foofu léegi li may waxaat. tàggatoo rek. li may waxaat li may waxaat. waaw yàlla bëri doole kenn amul doole. moo tax nga war a bàyyi sa menace yi. yi ngay ndamoo nii menace du ma menacé jombul kenn damay ma yow mën naa jombul kenn. waaw ma kenn ku nekk sa nga fa ak sa añ wala sa ndékki damay wax ne sénégalais ñu ñu a bàyyi tooñ tooñ tooñ tooñ tooñ ma mais tooñ parce fii nga fi jàpp benn seetkat lu ne nga wax ko ko fi ba mu xëy di ban seetkat man ah. dama globalisé li képp kuy seetkat laa la wax ñu bëri laa wax te loolu du ma ko bàyyi bu ñu waree ba pare dañ xam ne lépp dëgg la <laughs> bu ñu waree ba pare bu ñu waree ba pare dañ xam ne lépp dëgg la sa cameraman saytaane nag mu ngi la jox ay question rek mais bu ñu waree ba pare dañ xam ne lépp dëgg la baax na tëjal bu ma tëjul nga tàggatoo koy lay wax moom waxul ay question nga tàggatoo leen li nga wax dafa bari parce tey dama mbégte <laughs> waa tàggatoo rek mbégte bi ñu am moom sëriñ se yàlla rek a fi nekk. Eh, bàyyi na mënut leen tooñ euh, jërëjëf. mbokk internet yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax euh, délégué wax dëgg yàlla fi nga nekk yàlla nga fa gaaw génn. Amar fi nga nekk yàlla la fa yàlla gaaw génn ci barke Serigne Saliou Mbacke nga bañ defaat aussi li la fay yóbbu ay doog nag nag du wees jombul kenn jombul kenn donc ñu ngi lay ñaanal jàmm ak salaam ñu lan moo la fa dugal mais ñu ngi lay ñaan. xam nga moom sos yi muy bañ ak yooyu yooyu la nekk di def loolu mooy rôle am yow dafa mel li ngay jiñ délégué sax yow yow yaa koy def mais délégué defu ko en tout cas ñu ngi lay ñaanal jàmm ak salaam fi nga nekk nga gaaw génn fa te nga bañ a defaat li nga xamante ni moom moo la fay delloo maa ngi jégal waat mbokk internet yi bu baax a baax a baax ci eh, eh, eh, émission bi ni mu demee idali <laughs>